donc amoo épaule amoo kaw mais say hanche moo gën a développé. comme ni nga ko gisee si image bi am na aayu ndaw am na aay yoo xam ne elles sont donc. Euh, du ci du ci euh, tuuti waay wala ci ci am yaram bi la mais juste ci forme bi la fait que amoo épaule sa kaw dafa ndaw ba pare say hanche gën a développé mhm. donc pour rappel ñooñu mooy ñi nga xam ne ñooy morphologie A mhm. Euh, morphologie A nag leen di mettre en valeur mooy faut que tout le temps ñuy mettre l'accent sur li ñuy sol ci kaw pourquoi parce que seen kaw dafa tuuti donc tout ci qui est yi nga xamante ne euh, nu nu koy nu ko nit ñi di xamee esmeralda lañ koy woowee mooy haut yi nga xam ne day nekk bateau day ñëw tegu nii nga xam ne sa épaule day génn légèrement pour hmm. mettre en valeur sa eau. voilà exactement eau bi nii lay mel. nga xam day mettre en valeur say épaule hmm. mu wàcc nga génnee ko euh, aussi eau yi nga xamante ne manche bouffante la. day ne mettre en valeur aussi donc manche bi dafay am volume voilà comme genre bi donc euh, bi manche bi dafa am France donc lépp loo xamante ne dafa am France. dafa bouffante wala dafa am ay épaulettes wala ay volant comme genre bii nii manche bu am ay volant moo tax toujours faut mettre l'accent sur li nga xam moom ngay sol ci kaw toujours si kaw na ëpp volume parce que ci suuf su ëppee volume da ngay gën a am déséquilibre mmh. parce que ci suuf déjà moo ëpp ci kaw donc soo solee loo xam ci suuf dafa ëpp dafay saa ça va trop se sentir en fait mmh. euh, eau bouffante yi tamit yi ma leen wax yi nga xamante ne manche bi mooy mooy gën a gën a am am volume donc aay daal ñoom permettre nañ leen loolu. lépp loo xam ne am na volume ci kaw volume bi lu mu gën a rëy ñu ñu ñu jël mu gën leen mettre en valeur donc en bas euh, li leen di voilà mu ngi nii comme genre bii nii. Mhm. donc xam nga léegi da ngay gis eau yoo xamante ne manche bi dangay gis sax si xew nga gis koo xam ne dafay sol benn yére boo xam ne manche yi daf koy def mu am volume bu bëri bëri bëri. Mhm. bu fekkente ne a nga ça te da lay jàpp ça te met en valeur. Mhm. voilà euh, côté ñoom dañu xaw a am tuuti point en commun ak waa huit pourquoi parce que ay ak huit yi seen taille dafa marqué ñoom amuñu taille seen digg dafa ndaw donc ñoom dañu war a sol taille ot toujours jël haut bi comme ni ma ko waxee démb dugal ko ci biir ba pare mu dem en évasé comme jupe bi ngeen diis nii si écran bi taille haute marqué mu évasé donc lépp loo xam jupe patineuse la mooy comme modèle jupe bi wala lépp loo xam jupe trapèze la day dem en évasé moo leen di mettre en valeur xam ne moo xew léegi jean boyfriend yi nga xam ne day nekk taille haute euh, taille bi marqué ba pare. mu ñëw large wala mu nekk coupe droite. Mhm. donc lépp loo xam ne boyfriend la tamit dafay mettre en valeur ñi nga xamante ne ñooy morphologie A. Mhm. Euh, comme ni ñu koy terminer ku nekk sa morphologie dañ lay xoolal benn star international boo xam ne loolu mooy morphologie am pour ngeen mën a. Mhm. mën a xool mën a référencé aussi kooku noonu. Euh, donc star yi nga xam ne tey seen morphologie c'est en A euh, mooy koo xam ne ñëpp xam nañ ko muy Beyoncé. donc Beyoncé Morphology c'est en A ak Jennifer Lopez. donc on a voilà on a Beyoncé et Jennifer Lopez nga xamante ne seen morphologie c'est en A seen kaw dafa ndaw seen épaule développé wul mais seen ay forme macha allah dafa dafa généreuse gis nga man nag suñu suñu suñu suñu star yi nag. <laughs> Fatou Kiné suba booy ñëw na nga andi suñu nag xam nga dama dama dama ciy ragal ak ah. xam nga. non non ragal la dama incha allah ragal si ragal si wax yooyu. démb tegal <laughs> wax ma sama bopp. <laughs> nañ la sa président dinañ ci ñëw incha allah waaw démb moom tegal ngeen ma sama président ah. moom bi ma ciy wax sax dama doon hésité moom. Ah, non jàpp suñu président Macky Sall. Macky ah moom ban nañ ma indi si image yi ba ma neen moom moom morphologie c'est o waaye foofu laa foofu laa yam li lay wan ne Ola oh mooy du sol mukk costume boo xam costume boo xam ne c'est slim fit il porte tout le temps des costumes réguliers fit yoo xam ne coupe droite lay nekk juste pour bañ a accentuer ou marquer ay formes et tout exactement voilà dinaa def loolu indi leen euh, suñu star yi. <laughs> waaw parce que boobu noonu soo xoolee façon solo yi ak léegi du benn pourquoi parce que boo xoolee suñu maam yi elle s'habillait traditionnelle donc tenue traditionnelle daawul marqué say forme mhm. soo xoolee daa nekk ay grand boubou ay yenn robe yoo xam ne yu large la donc da ngay ñëw sol rek mu wàcc mais xam nga léegi ak modernisation bi mode bi xam nga ku nekk yaa ngi yaa ngi yaa ngi xool ni ngay li lay metre en valeur mhm. li ngay sol ba nga xam ne dafay metre en valeur say forme grand boubou bi rek waaw jël grand boubou bi rek daal di sànneeku rek daal di dem waaw forme yeeg yooyu daawul woon fenn daawul woon génn exactement léegi nag gis bu ne ngay gis waaw bu ne ngay jaaxal yii ABC mooy def yi ma ne ko ABC mooy def yi Viviane ah. Viviane est du A ah. Viviane amul kii de amul épaule mhm. amul épaule donc mën nañ ne ala A ah. la A la gën a nuru waaw parce que ah. elle a la taille marquée elle a les les trucs hanche yi s'est développée voilà donc euh, A <laughs> la gën a nuru. suñu star. jeex na waaw kay jeex na waaw kay. ñu ngi doon staru ñëpp staru Cheikh moom rek lay topp. allez tata bi bi. journal si Cheikh Cheikh Cheikh dafa doy waar de. kay fàkki ne. journal si doy waar la. ma ne ko waxoo de Cheikh rek. mais par contre kii fàkki de ñi genre yaa ngi wax kii mais. am na ñi nga xam ne eh, nii. ay euh, dañuy def hijab mais surtout hijab fashion ak yu demee mm. noonu ñoom aussi xëy na peut-être am na ay tenues yu xaw a adéquat par rapport ak seen i ak yu demee noonu bon bien vrai que ci ñu mm. ëpp dañ leen di wax ñuy sol loo xamante mm. nii ça laisse pas apparaître leur forme et tout donc mhm. euh, est-ce que am na ci ñoo xamante ne xëy na peut-être ils peuvent avoir des tenues beaucoup plus adaptées à à à seen nga xam moom la ñu leen di wax ku ci nekk selon forme bi nga xamante ne moom noonu la noonu la la yàlla bindee mhm. li nga xamante ne da lay mettre en valeur parce que soo gisee morphologie A tey seen hanche moo gën a développé mhm. xam nga tey mënoon nañ ne morphologie A dañu war a sol loo xam dafa serré ci suuf day mettre en valeur seen forme non mais boo gisee toujours li ñu leen di conseil mooy ñu sol loo xamante ne day dem en évasé. wala ñu sol pantalon yoo xam dafa large parce que soo accent voilà comme genre pantalon yii nii nga xam ne du marqué trop trop trop du mettre en valeur trop trop say ange parce que boo defee loolu noonu en fait yow à moins que nga def ko exprès yow nga décidé ne man xam nga dama bëgg wane ne voilà am naa samay hanche et tout mm. nga sol loo xamante ne dafay génne sa forme mais sinon li ngi leen di conseiller toujours mooy ñu sol loo xam day dem en évasé loo xamante ne dafay fluide nga xam du accentuer wu torop ci seen hanche parce que quand tu mets trop en valeur <coughs> say hanche bu dee moo gën a développé dafay dem ba day créer benn déséquilibre boo xam ne ki lay xool en fait da koy da koy gis ba pare euh, lu gën a am importance les a lu ñu war a gën a gën a gën a éviter mooy ay leggings léegi si ma wax baa parce que moom la nit a xam baa pour nit ñi gën a comprendre baa yi nga xam ne dafay ñëw tafu sa yaram jël sa forme ñi nekk morphologie A franchement désolé waruñu ko sol mais voilà mënoo nekk A ne da sol baa par exemple baa euh, koo xamante ne euh, say tànk peut-être dafa ndaw dafa fin ñan a ngi noonu a eh, mais li mu wax c'est li mu wax c'est important parce que voilà ah, parce que ba non am na non am na ñu mën a. sol dafa am ay type ko sol di génn dafa ay type kon ñoo ñuy rey. xoolal. Hmm? deux dafa am deux ah, types man chaque jour gis ñu sol baa di. non na yu bi ñuy am na yu ñu dul génne. mi ngi ah, bi ñuy woowee baa mhm. du pour génn. pour jiital la. parce que matière bi dafa oyof torop boo ko solee day ñëw épouser. ngeen baal ma am na ñoo xam ne baa bi ñuy sol day tafu seen yaram ba nga xam ne. à travers baa bi seen cellulite yi da nga koy gis. comme dañoo c'est pas joli à voir rafetul bi ñuy woowee baa bokk. du pour mm-hmm. génn. pour jiital la am na boo xam ne c'est pour sortir boobu nañuy wax leggings parce que matière bi soo xoolee. moo moo gën a diis. mooy baa bu diis bi pour nga xàmmee ko sax d'habitude da ngay gis day am ay fermeture fermeture yu nekk ci côté yi. Mm-hmm. moo lay wane lii ça c'est pour sortir. xam nga loo xam ne ci biir la war a dugg kenn du ci teg fermeture fermeture bi kenn du ko gis donc bi nga xamante ne mooy leggings nga xam ne bi day diis tellement nga xamante ne boo ko solee du bàyyi dara mu feeñ on voit rien à travers donc bi ñuy woowee baax daal ci gàttal c'est pas pour sortir gis naa ne temps yi jël nañ ko surtout bi nga xam ne dafa dafa huilé surtout bu huilé boobu noonu nga xam dañ ah. koy jël di ko sol mais am na yoo xamante ne du enfin xasuma kenn dénigré wu ma kenn mode dafa nekk loo xam ne. voilà mode dafa nekk. mode ah? voilà donc mode dafa nekk loo xam ne dafa large en plus euh, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. surtout morphologie bi nga xam ne moom nañuy wax nii kenn du ne sama morphologie moo dàq ba su keneen morphologie yëpp rafet parce que képp ku yàlla bind nam la bindee macha allah suñu borom du def lu ñaaw lépp rafet juste bu ñuy wax ci morphologie yi waxuñu kii moo dàqale wala kee moo gën a ñaawle dañuy wax juste pour ku nekk selon sa morphologie nga xool li nga xam ne moo lay mettre en valeur mhm. nga mën ko sol bu ko defee soo génnee macha allah ñëpp apprécier boo nekkee A yàlla may na la hanche yu développé ngir yàlla bul sol loo xam dafay ñëw tafu ci sa yaram. Mhm. solo pantalon yu large yu flûte yu évasé nga sol bu la neexee nag ci kaw O bi nga def say say say volume comme ça mu mën a équilibré mhm. bu buñ koy wax se pas pour sortir. Mhm. pour jiital la wala pour leneen yaa xam wala nga sol sa biir kër. soo bëggee sol loo xamante ne day jël sa forme comme baa y a si nga xamante ne moo gën a diis. mën nga ko sol sans mu heurter kenn. boo rombee ci koñ moom bàyyi. kon bàyyi leen bàyyi leen sol bàyyi leen tamit bàyyi leen bàyyi bàyyi leen ba leen borom bàyyi waay nañ bàyyi bàyyi man de conseil laa man maa ngi ah, wax en espérant que ni à travers ça ku ci nekk di nga xool lii ànd ak sa morphologie waaw nga sol ko ah. bàyyi leen borom bàyyi kenn ku nekk <laughs> mooy li ma wax mooy li ma wax sànq les goûts et les couleurs ne se discutent pas ku nekk li nga sentir nga sol ko mais juste on donne juste des conseils pour ngeen bàyyi xel ci seen ah, morphologie xam li ngeen war a sol ak li ngeen warul sol jeex na mi ngi noonu baax nañu def seer. <laughs> moom seer la lay wax de moom nee nañu def seer. moom nee nañu def seer waaw nañu muuru nañu muuru. Mhm. waaw sama xarit bi. ak yow nañu sol grand boy est-ce que vous que di xool. Euh, par exemple benn mère boo xamante ne j'aime bien prendre xaar mbay ma jàkkaar. Soda Mama Fall. Soda Mama Fall. maam lañ. Ah. mais euh, à travers li ñuy sol. mais c'est tellement joli. Mhm. seen grand boubou euh, yi. buñ ko takkee ci ndigum nag. dëgg la ba léegi saa yu gis am na ñoo xam buñ ko defee rek nga kontaan mhm. aussi. Mhm. ba léegi nit ñaa ngi koy def. dafa rafet waay. mais nag est-ce que xam nga lenn loo ah, sol sol sol. loo mënti sol tenue moderne am na milliers yooyu dem yoo xamante ne grand yooyu ngay wax moo fay dem. da koy sol. c'est une question de de de rek. loolu yëpp yéen a ko indi ay modèle fii war naa dem yóbbu. ah non mais mais soo <laughs> solo solo fu ne ak li fay dem. tey jii par exemple booy dem na nga ne da ngay liggéey am na liggéey yoo xam ne ça te permet pas ngay sol yenn tenue yi. Mm-hmm. da gis am na y' a des postes. ay liggéey yoo xamante ne on te permet même pas sax nga sol tenue traditionnelle parce que mhm. àndul ak sa liggéey mhm. donc liggéey bu nekk ak li fay dem milieu bu nekk ak li fay dem mhm. les vendredis par exemple dangay gis entreprise yi ñëpp dañuy def seen ay yére wolof hmm, def traditionnel mais les autres jours dañuy sol li nga xam ne moo ànd ak liggéey bi donc milieu bu ne ak li fay dem hormis modernisation bi fu nekk dafa am loo xamante ne moo fa war a dem mais yéen a wala fi taxul ñu bàyyi ko aussi ñu ngi koy sol ba léegi. <laughs> aywa na la solo dégg topp leen ko merci Fatou Kine ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. merci à toi aussi incha allah voilà. ci beneen morphologie. exactement ñu ñëwal leen rek ci beneen morphologie. waaw ñëwagoo ci ma ko ñëwaguma ko suba sax. incha allah waaw soo soo ci ma ñëw si H. incha allah waaw incha allah. <laughs> suba ci yow la ñuy ñëw merci à toi ça. merci beaucoup nga ma di waxoo xulóom du jeex de xulóom du jeex du léegi suba ñu ñëw ci Lamine Senghor. léegi loo ah, léegi loo ma sigalee ginnaaw suba incha ñu ñëw ci Cheikh. loo ma sigalee rek laa bëgg a xam. moom ah, yow la ñuy wax say mbóot fa la wax kay na yow ci yow. lu tax mu teg ma bët moom lu tax nga teg ma bët <laughs> merci Cheikh ba demain incha allah. <laughs> ba demain incha allah merci beaucoup Allé. parce ah, que bu leen ci xoolal damay dugg parfois Fatou ne ci ci taxi yi maa ngi koy wax sànq ñu naan ma. Mhm. baal Lamine Senghor da nga ko sonal mais diggante Lamine Senghor ak Cheikh bu ci kenn dugg. bu ci kenn dugg de ah xam nga suñu ay xarit. nañ leen seetaan quoi seetaan leen rek mooy loolu ak ah, Cheikh. à demain incha allah merci beaucoup merci à vous à la régie à demain incha allah même à partir de 7h excellente journée à tous et bonne suite des programmes. Hey.